monsieur Diop euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Elisabeth. voilà professeur Saliou Diop may fàttali ne yow yaay directeur au centre national bu transfusion sanguine euh, bu Sénégal di CNTS. Euh, tey jii ñu gis ne yéen a ngi woote ne jamono ji sénégalais yi dem tuñu sax joxe lii di deret mën nga ñoo wax lan moo xew exactement. waaw woote bi li ko waral mooy que ñun dañuy seet rek nan la ñuy def ba. Euh, waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñoo daan euh, maye deret mhm. pour leur assurer que ni mun nañu continuer toujours di maye deret tout en respectant mesures yi nga xam yépp ni jël nañ ko mooy mesure d'hygiène yi mhm. ak aussi mesures yi éviter regroupement loolu lu am solo la parce que ñàkkum deret bi mu ngi commencé di installé wu seetlu nañ li ñu daan am ci nombre de donneur wàññeeku na bu baax loolu du Sénégal rek loolu ci euh, réewu àdduna yëpp la euh, la ñuy gis loolu euh, donc lu ñuy war a xaar la mais loo xam ne day am ay gàllankoor la pour hôpitaux yi nga xam ne dañuy soxla sang boobu pour utilisation chez les patients donc seetlu nañu daal depuis feebar bi mu commencé ak léegi buñ daan am ñeenti donneur léegi benn donneur rek mooy ñëw Euh, loolu dafa nekk ci période boo xam ni dañoo jege ramadan bi euh, te ñëpp xam nañ ni ramadan bi aussi ñuy may dañuy wàññeeku lool lool lool. Mhm. loolu moo tax ñuy ñuy euh, ñuy ñaax ñi ko daan def ak ñi ko mosul def ñu gën a mun a rapproché wu ci centre de transfusion en leur assurant que mesures yi ñu war a jël yëpp dinañ ko jël pour que ñu mun a maye deret boobu ci respect wu. recommandation yi nga xam ni euh, ministère de la santé euh, joxe na ko. professeur ñu gis ne contexte bi ngeen di defee euh, boobule ñaax université Cheikh Anta Diop dafa tëj waaye it yeneen école ndax mën nañ jàpp ne université foofu la nombre de donneurs yi gën a bëri. waaw xam nga booy seet ñi daan maye direct fii ci centre de transfusion téeméer boo jël juróom benn fukk yëpp ñun ñoo leen daan dem di leen fekk loolu ñu tudd ay collecte mobile. Mhm. ñun ñoo daan dem ci entreprise yi ñun ñoo daan dem ci euh, association yi fi ñuy dëkk euh, ñoo daan dem tamit ci université yi ci école de formation yi mm-hmm. euh, léegi nag xam nañ ni université bi dañ koo tëj donc déjà université bi li ñu daan indil ci maye mayekat yëpp dafa bëri donc li ñuy tëj université bi tëj tamit daara yu kawe yi nga xam ni ay structure privée la yu nekk ci ak yenn lycée yi loolu gàllankoor na bu baax Euh, li ñu daan am ci ci ay donneur de sang euh, loolu nag buñ ko dollee mhm. euh, entreprise yi ak association yi daan organiser te fi mu nekk nii donc ñuy moytu regroupement bi donc yooyu activité yëpp dañ ko annuler loolu daal moom mooy expliquer en grande partie li tax don de sang yi wàññeeku bu baax mais booy seetlu quand même am na toujours ay nit ñuy ñëw di ñu fekk si fii ci centre de transfusion parce que euh, ñun léegi dañoo commencé di woo personnellement euh, donneurs yi nga xam ne ñu ngi ci suñu base de données donc actuellement euh, surtout ak communication bi ñu def ci biir semaine bi yëpp seet nañ daal bis bu nekk dinañu am en moyenne une cinquantaine de personnes yoo xam ni dinañu ñëw fii di ñu fekk si wante nag loolu doy loolu moo tax ñuy gën a ñaax nit ñi ñuy ñëw pour fekk docteur wala professeur mën nañu mm. ne sax confinement euh, donte ñu ngi koy wax c'est pas encore officiel ndax loolu moo gën a téye nit ñi wala sax dafa am lu ko waxal ndax dafa am yeneen yi nga xam ne daf ci la waxee rek xam uh-huh. nga euh, regroupement yi ñuy tere. Uh-huh. moom moo gën a tax euh, association yi daan organiser organiser tout waaw xam nga bu ñuy seet ki nga xam ni mooy expliquer don de sang yi ma yu wàññeeku yi. Uh-huh. surtout surtout sunu collecte mobile yi ñu daan organiser ak association yi yooyu ñoo wàññeeku donc euh, loolu nag euh, moom euh, ça s'explique donc c'est surtout loolu moom moo expliquer lu ñu lu ciy wàññeeku wante moo tax ñun tamit ñu ngi def yeneen stratégie pour di jege par exemple des armées di mm-hmm. jege aussi yeneen organisation yoo xam ne ñun dañ leen di dañuy changé sunu façon de travailler rek pour permettre à ce que nit ñi dinañ mën a maye sans que dajaloo bi du am nit ñi dinañu maye tamit euh, sans que euh, risque benn am pour ñi nga xam ni euh, ñoom ñooy ñëw ci collecte yooyu te fi mu nekk nii commencé nañ koo te dinañ ko gën a intensifier avant que mois ramadan bi di commencé. et justement ci diir ñaata weer wala ñaata semaine situation bi buñ ko gën a nemmee ko Sénégal dina am njàkkare ci wàllum ñàkk deret. non fi mu nekk nii xam ne ñu ngi à deux semaines du mois de ramadan. Mm-hmm. Euh, te actuellement nii euh, délai bi ñu am nii euh, vraiment doyul pour satisfaire suñuy soxla yëpp. Mhm. xalaat nañ ni Ramadan bi bu ñëwee tamit dina nar a continuer loolu moo tax ñun ñu ngi def toute cette communication pour que avant Ramadan bi ñëw ñu am ay stock yoo xam ni comme niñ ko daan defee dinañu permettre ñu am ci Ramadan ñëwtu am benn problème. fi mu nekk aussi wax wàññi nañu bu baax utilisation bi tamit waxtaan nañu ak ñi daan prescrire pour que lépp loo xam ni ay euh, acte de chirurgie la wala ay traitement la yoo xam ne day laaj délai te te nekkul lu urgent trop trop ñu bàyyi ba beneen demi jamono hmm. euh, te que euh, période bi ñu gën a privilégié di traiter urgence yi urgence yi daal la ñu gën a fi mu nekk ñu jox important pour ñu bañ a am daal benn problème d'urgence boo xam ne mun nañu posé wu sans que deret bi xaw a mën a disponible loolu nag dañ ci woo ñëpp loolu dañ mhm. ci woo ñëpp parce que loolu stock boobu pour renforcer ko moom il faut que ñi nga xam ne ñëpp vraiment mun nañ ci participer euh, ñu participer ñu ngi ciy gën a woo sax ñi nga xam ni ñoom daal nañ ko def daan nañu tàmm nañu maye mhm. donc ñoo ñu xam nañu bu baax fan lañu ko war mun a maye ak euh, actuellement sax on a une possibilité de prendre un rendez-vous pour que ñun ñu adapté wu par rapport ak ñoom seen horaire bu ñu ñëwee rek euh, ñu mun leen prélever sans ñuy xaar lu gis nañ ne tamit woote bi dañ koy faral di dégg saa su nekk ndax mën nañ cee jàngat ne sénégalais yi euh, dañoo amul rek lii di culture dem maye ji deret xam nga euh, deret bi nga xam ni dañ koy maye deret moom dafa am benn durée de conservation euh, boo ko boo ko mayee boo ko dugalee ci frigo yi bu ñu toogee ci li ñuy gën a mooy glude rouge yi lu toll ci fanweeri fan ak juróom rek même boo ko utiliser wul sax day yàq loolu mooy tax le fait ñu koy may dañ koy répété dañ koy war di régulièrement régulièrement xam nga ni jigéen ñi mun nañ ko mayee ñeenti yoon ci at bi mm-hmm. góor ñi mun nañ ko mayee no jigéen ñi mun nañ ko mayee ñetti yoon ci at bi mm-hmm. góor ñi mun nañ ko mayee ñeenti yoon ci at bi donc loolu c'est lié ak produit boobu la nga xam ni produit la bu ñuy conservé conservation durée de conservation am euh, yàggul trop mm-hmm. waaw bu ci dollee nag ni euh, effectivement il y a beaucoup de freins nit ñi xam nga fii ci Sénégal nit ñi xamuñu bu baax affaire um ni nu maye deret euh, y a beaucoup de freins socio culturels euh, sur le plan donc yooyu yëpp da war di sensibiliser y a aussi des freins économiques parce que nit ñi aussi bu ñu euh, jógee suba dañuy jéem a wuti ji lu ñu dundee plutôt que di di di maye deret yooyu yëpp daal day wàññi mbirum volontariat mbirum volontariat day wàññi ndax ndax frein yu bëri yooyu euh, di am. justement yéen au niveau du centre national de transfusion sanguine bu Sénégal mhm. ndax yéenay alimenter banque yëpp wala sax da ngeen koy organiser au niveau sectoriel. waaw xam nga organisation wu transfusion Sénégal fii ci sunum réew. Mhm. Euh, centre national de transfusion moom mooy coordonner activités yi sur le plan technique euh, ci ci réew bi yëpp. Euh, mais am na ay relais ci biir région yi ci biir région yi euh, fi mu nekk nii am nañu mun nañu xayma lu toll ci ñaar fukk ak juróomi structure yoo xam ni mun nañ fa dem mun nañ fa maye deret euh, te loolu dafa law ci région yëpp mhm. ci biir Sénégal centre de transfusion nag moom mooy harmoniser moom mooy assurer wu quand même que sur le plan technique li ñu war a defee pratique transfusionnelle boobu dina am Euh, nu ñu ko war a moom mooy assurer aussi qualité bi. Mhm. et cetera même réactif yi ak intrant yu bëri moom moo koy joxe. moom mooy gérer également euh, donc coordination ak harmonisation pratique bi à l'intérieur du pays mais teewul nag euh, région yi nekk am na ay structures yoo xam ne ci biir hôpitaux yi le plus souvent. Mhm. ay structures yoo xam ni ñoom ñooy organiser mayam deret bi ci région boobu. professeur dañ koy dégg euh, souvent mm-hmm. ah, donte mm-hmm. <laughs> tout à l'heure ba ñuy jokk ak yow ci français nee nga mm-hmm. nañ ñu woon fan lañ ko gisee dañuy dégg nit ñi di ko jàmbat euh, dañ leen ñuy wax ñu dem maye ji deret buñ demee ci hôpitaux yi ñu jaay ñu deret mbir mi nan la demee waaw loolu c'est vrai que question bu nit ñi di tout le temps tout le temps la mais euh, mooy li ma koy waxee tout le temps rek mooy que nit ñi dañ koy wax di ko répété waat mais kenn mosul indi benn firnde ni dem naa ci hôpital bii ñu ñu jaay ma deret Euh, loolu tamit maa ngi leen di wax yéen journaliste yi bu fekkee ni gis ngeen loolu tamit ngeen ngeen ngeen e-, eggali ñu ko. mais quand même euh, lan mooy waral xaalis bi di génn poche bi la wala euh, parce que. non xam nga xam nga deret aussi dafa am lu mu dafa am njëg. d'accord ah, parce que deret bi nga xam ne da koy maye yow boo koy mayee c'est vrai que kenn du la fay. Mhm. wante deret boobu la ñuy jël rek utiliser ko yokk ko ci benn patient déedéet. deret bi ñuy collecté. Mhm. war na am fépp fu mu war a jaar poche bi ñu koy dugal. Euh, test yi nga ciy def ay machines yu cher a cher a cher la mm-hmm. euh, xayma nañ ni benn poche su boo xam ne yow collecté nga ko euh, avant nga ko utiliser ci benn malade mm-hmm. da nga ci da nga ci dugal lu toll ci juróom-ñeenti junni ba fukki junni pour que deret boobu ñu mun ko utiliser pour mu nekk deret bu sûr donc dafa am coût fii ci Sénégal nag comme ni ma koy waxee tout le temps mm-hmm. état Sénégal moom mooy assurer financement boobu de telle sorte que dans les services publics donc dans les services de l'État donc état bi jël na décision que ni patients yi du ñu fay dara loolu daal moom la ñu teg fi mu nekk nii euh, moom la ñu war moom la ñuy dogal euh, képp ku gis leneen nag xamal ni loolu euh, kuy kuy damm yoon la rek wante loolu moom la ñu doxal actuellement ci ci réew mhm. professeur Saliou Diop merci. merci beaucoup jërëjëf. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di fàttali mhm. suñuy auditeurs ne yow yaa doonoon suñu gan di leen fàttali ne tamit mooy directeur au centre national de transfusion sanguine bu Sénégal CNTS merci beaucoup.